aussi convention mhm. Nous RTS. pour ne pas dire euh, crise vous commencez mhm. entre Pape Allé et ses euh, collègues euh, dafa contrat d'entreprise. Nous bi sitting bu RTS pour désaccord face à cette décision de Pape Ousmane comment vraiment par rapport à ce qui se passe à la

maa ngi gasar gasaree. xaalisu RTS waaw waaw ci laa jëm si maa ngi gasar gasaree xaalisu RTS. yéen ñii nga xam ne mën ngeen ma sonal. oui leen seen wàllu te noppi ci pactole bi. maanaam mhm. daf leen cër. Mhm. ka yoroon RTS daa jël cër leen point ñu noppi. Mm. xam nga léeg-léeg nga maanaam milieu yi kenn àddu kalpe am ko ko gis. mu yëkkati ab 5000 wala 10 000 ci calpe bi jox ko na ko noppi loolu waa mun RTS rek mëq leen noppi mais li am RTS mais mm. c'est scandale mm. as gor war ngaa ruus a génn di revendiquer li leen Pape Alé xañ mm. boîte bu mel ni RTS dafa attan loolu 253 lignes téléphoniques fu ko RTS fu ko RTS di gàddu ay retraité ñoo yóbbaale seen ligne mooy li ma la wax rek danaa fexe ba yéen seen condition de vie normal ngir ngeen mën a noppi ci sama gabi

autorité yi ko fa tab ñooy mm. toog ne RTS poste bi mérité na salaire bi ou ñu wàññi ko ou pas mm. donc moom li ma gëm daal mm. mooy lim ne moom lañuy ñuy xaar mooy boîte di ne ñi fa dugaloon ngir politique mm-hmm. ngir ngir ngir yaama neex ngir sa papa fi nekkoon ngir diw yooyu yëpp nañ ko xool teg jëf yi ci yoon contribuable sénégalais bi amul lu bëri ñu yaxanal lim am en plus euh, papa Alé euh, génn na ab communiquer sax euh, pour rek leeral mom nee na carrément mbir muy daf ko dàkkandi rek ñu tégal ko ci suuf pour ñu def état des lieux parce que président de la république Macky Sall mi ak kii di Racine Talla mi nga xamné ne ñoo dogaloon yooyu mbir mbir mi mën nañ né carrément boobu les décret ministère bu yor walum finance bu validé ko donc le temps que mbir bi di euh, dugg si circuit bi euh, moom dafa jël décision rek euh, dàggandi ngir rek mun a mhm. pour RTS mun a supporter yooyu les coûts si masse salariale am c'est le dernier communiqué de Pape Alé Niang léegi nag say maître chanteur la mhm. di wër foog ni fi ñu directeur yu njëkk ya mhm. mooy boo defee bureau directeur bi du bëgg bureau ndax bëggul président mere ko fii président bi moo santaane bureau moom dañuy yuuxu pour rien rek bah, bah, non d'accord euh, rationaliser les dépenses ah, nous on applaudit mais nous avons aussi Pape salaire salaire grand le <laughs> salaire. <laughs> Ah, en plus man waxal sama salaire je suis dans le privé hein <laughs> <laughs> je suis dans le. privé Je dans le privé je suis dans le privé. je suis là du lundi au euh, samedi je suis dans le privé man non, non, <laughs> parce que je suis privé là. Non, papa, il est. voilà. Non, mais papa, il l'argent c'est pas c'est pas du loolu moy première motivation quoi. Hmm. foogoon loolu la rek pabaale dem na fenen ci yenen ci yeneen jamono. oui je pense que am na sacerdoce moy relever le défi de la RTS et que dañ ko def quoi. Mhm. donc booy redresser. moi je pense que nañu waxtaan. c'est euh, biir non papa c'est un homme ouvert. ouais c'est un homme de dialogue. Euh, grand pour daan cas loi RTS bien avant mu fay ñëw. kon je hmm. pense que problème dafa am nak dafa am ñoo xam ni. oui les Pape Alé laal salaire yi méttiwul leen de dafa am ñu nekk ci kaw. ña leen fa tegoon ñoo leen woo ne leen yëngal leen wane ne Pape Alé def d'accord leen ci. Mhm. waaw maanaam loolu la daal. Euh, Lol, euh, ñu ñëw aussi euh, beneen biir ba tey bu concerné la presse moo nekk décision bi rek nga xam ne le PM aussi jël na ko PM moom ak la presse dafa mel ni que moom désamour la pour ne pas dire les patrons de presse convention yi daf ne rek ñu dàkkandi gis ne nag patron de presse yi wala yenn journalistes yi jàpp ne ba tey kii di Ousmane Sonko mu ngi si logique yi rek axifié li nga xam ne moo nekk la presse sénégalaise ban jàngat nga def par rapport convention yi ak ñun ñu koy octroyé ñenn ci la presse sénégalaise ak cette décision euh, bu radicale bi nga xamné ne euh, le PM jël nako aussi. j'applaudis man ngi koy oui. tane dem jusqu'au bout. Hmm. mu dem jusqu'au bout waaw ca laay ñëw si jàpp sax xam nga ne amna na nit ñu nekk ci réew mi. oui. ñoo gën a rëy le montant ci convention ñoo pour convention ci direction ak ministère yi. c'est vrai amuñu télé benn caméra la ñu am ak benn téléphone. dëgg la am sa ay locaux wër di saaga ndey nit ñi. c'est vrai ak a defal nit ñi propagande ñu signé leen convention fu ne. c'est vrai. ndax nguur gi fi jóge lañ àndaloon. Mhm. pendant ce temps là ay chaîne yu sérieux mm. yuy def seen liggéey di ay jàmbaar ñu ngi leen amel ay convention teg ci coono. Mhm. essaye à comprendre. maa ngi comprendre bëri na. média bu daan wër naan passé fa nga tar réew mi ay terroriste lañ convention yañ daan am la. Mhm. bëri na juriste bu daan wër naan Conté Max ba dañagul. Mm. buñ ko condamné mënul nekk. Rabat dara ba nangam nangam dafa am ay contrat en tant que consultant juridique ci ay ministère mm. soi-disant expert en sécurité yi nga fi doon gis yëpp dañu am ay convention mm. fan yi ñu ngi daw sax pour ñu fay leen. xam naa xam naa ci ñu bëri du ma leen tudd kay xam naa ci ñu bëri. man am na ñu ma ci xam. ah man kenn xam naa ne xam nga leen. ñu ngi dàq ji seen convention yi. depuis novembre. ah waaw di daw le le PM tëj robinet. di daw sa faak Sonko mi tamit moom tamit nag di daw sa faak Marwa ngir jot seen convention bu leen fay. nañ fay nag média yu sérieux yi président Diomaye def ne. oui. nañu préparé ngir fay les les nu mu tudd les dettes raisonnables. Mm-hmm. mooy li nga xam ne yenu na maanaam. c'est vrai. danañ ko fay ñin ko war a fay convention yi danañ ko nangu jox ko ñin ko war a jox. Mhm. télé bu baax bi nañ ko jox convention. Mhm. Sénégal 7 nañ ko jox convention. Euh, Sénégal 7 moom am na ba doyal Sénégal 24 nañ ko ah yaa leen catu <laughs> Sunugal 24 nañ ko jox convention. yow daal say waay kër ngay ngay ngay ngay ngay waxal sama kër limite ko jox convention. man je suis pour ñu. Seneweb nañ ko ñii ñoroon tàllal micro askan bi bi wax jafe télé yële di teg ndaga ñoon nen nangu seeni convention.

xam nga man euh, Ousmane Sonko moom nee naa ko moom diggante moom patron de presse bi ci rek man moom mhm. j'applaudis j'applaudis mhm. parce que patron de presse yi moom au Sénégal man euh, dama jàpp ne carrément yéene woon euh, mhm. les journalistes en fait yéene woon seen ñi nga xam ne dañ koy liggéeyloo tey ji assainir yi nga xam ne moo nekk la presse certes mais est aussi au-delà de ces conventions est-ce que état bu Sénégal amul aussi nu mun a accompagner les journalistes forcer les patrons de presse ñuy dem déclarer ñi nga xam ne moo nekk seen ay partie aux euh, fi inspection du travail ba ñu mëna sax euh, jël salaire yi ko fu nu mu waree parce que précarité bi nga xamné mu ngi ci presse bi euh, nekul secret pour personne aussi Cheikh Ousmane. loolu wax naa ko xam nga presse bi. oui. dañu war a xool aide à la presse benen forme. oui. bo xamné dana impacter les acteurs de la presse les journalistes. Mhm. mu bañ a nekk xaalis bu ñuy ay billets première classe ay finale Ligue des champions ay hôtels ak ay 4x4. Mhm. pendant ce temps là les journalistes di une situation nekk ci benn précarité. bu doy waar bu doy bu doy c'est compliqué. da gis patron de presse boo xam ne saa match Ligue des champions amee. Mhm. mu dagg billets première classe dem. je te jure dal hôtel bu cher di noos di yaataa yu ak di dem euh, ay ay ñu convoqué journalisme dig yow dig woo la car rapide ngay jël non mais loolu fi union. ah mais tamit car rapide aussi moyen de transport rek la aussi hein oh, oh, oh, waxee ma ko foofu. oui. fi ma xëy waxee mooy am na benn statut ci benn nit ko non nit kuy bind rédacteur en chef waru jël car rapide xam nga lu tax. mais c'est un moyen de transport. non waru ko jël. parce que aussi mais war nañ ko mettre à l'air Sénégal lañ jékkee mais da ngay dem si pays yeneen pays da ngay gis ne sax c'est des pays développés voilà, c'est des pays dama lay jox exemple rédacteur en chef bind dara hmm. ci ci ay nit nit ñi xàmmee ko mu jël car ñu dóor ko fa xam nga sécurité waru ko jël su ko patron mun ta jox oto mu yóbbu ko sax xanaa yow man daal man daal fonk Sid lay di di la xaar Sid buñ ñu convoqué waat nitam. Ah. moo lay jiitu di. dama fokkoon si fay sa lay. pas fay mooy maanaam bu ñu convoqué nitam Sidi musuma dégg ñu ne nitu Walf ngi dig ana Sidi gisuñ ko fa moom moo lay jiitu di. Mm. je me rappelle am na rédacteur en chef bu ñu mos a woon convoqué ci benn une journée. Mm. Sidi na dër dorénavant man maay posé sama signature. Mm. ci une Walf quotidien la xam Walf grand place. nit doo ko jiital ba pare di ko setaan. ku la nekkal ci naaj bi dañ koy neexal ci kër

Euh, dina dina dina sori tout un tout petit peu les journalistes parce que man dama jë man dama bokk si ñuy japp ne carrément journalistique Ken kenn waru len gën euh, vivre confortablement parce que euh, Sénégal rek ngay xol ay sen journalistes. aux États-Unis ils sont bien. mais aux États-Unis en France même même euh, Mauritanie hein, parce que ñun on dañuy amone ay euh, ay promotionnaires yo xamné des promotions. Nous, li nga xamné mo nek suñu ay promotion il faut ñu ngi fofu les Mauritanie mais ils ont de très bons salaires fait Mauritaniens Mauritanien, ñoo mën fay salaire yu ça comme tout le monde au Sénégal la Côte d'Ivoire bi nga aussi c'est la même chose. Non, non Sénégal mom dañoo japp né journaliste moom danga wara pauvre nako danga wara pauvre patron de presse yi nañu bàyyi xel euh, vraiment euh, si ñi nga xamné mo nek les journalistes euh, techniciens de médias et de manière générale rawatina reporters yi nga xamné à chaque fois ñom ñoo nek si terrain bi l'État aussi accompagne aussi la presse la presse dans si grand ensemble soit ñu far ak ñom ak ñu farut ak ñom l'essentiel moy que rek ku nek ce rôle na ko def ba Sénégal daal mën see gis boppam man je